Mayra Nurjan'cığım. Güzel sanmış. gën gërëm bëgg ñu waxtaan tuuti rek ci li xew ci jamono ji te fan yëpp ñu koy coow muy weer wi yëpp mooy tuuma ju njëkkati lokaci da rogor da rujulit da rutsalibi mutu kashirai mai war a sàmm ba war a jëfal war a xontu jur gi ñu a xëy a mar waaye nga yeewu leen joxoo leen lekk joxoo leen luñ naan teg leen ci condition yu bon ku ko def ku ne de yaakaar ne dina la jikk te yàlla nga bëgg a toroxal doomu aadama yi ku yàpp ne ku jàpp ne danga mën ngaa daan nit ko àllaaxira yaa ngi nax sa bopp quatre-vingt-quinze pour cent yi ay am kenn ku leen jiite ne ca bopp ba mënoo wax jullit la mënoo wax lan la te njiit lañ koy tànn waaye njiit loo xam ne dafa soxot ñàkk njëriñ ba noppi di xeex diine ku tànn wuroo tànn kooku bu la ko yàlla natt nag danga ko muñ te day mel ne lu Sénégal yàlla doon na toll loolu ndax soxat wii suut ne cim réew jiite ko ñuy wax ay opérateur économique wala ñu leen di wax ay homme d'affaires teen bañ daan naane tëjoo ko nga war ko di forage nga placé ay tuyaux fu ne ndox ma jot soxlay boppam nga dugal wala nga jox ko say bokk loolu ayaan féete woo kaw moo tax opérateur économique yi sonn nañ am d'affaires yi sonn nañ ñaan weesu itam Sénégal yi nga xam ne ñoo liggéey ba am seen paas dem bitim réew di fa liggéey di fa yëngu te loo am doo ko mën dugal ci mi wala nga ne ci mi. war am xaalis bu la jógee bitim bu boo xam ne pour pour pour lewal doomu ma lay doon nga bu koo jàllale si doo ko mën a doo ko mën a dugal doo ko doo ci a jot am million sax boo ko dugalee day laaj foo ko dugal rek foo ko jëlee rek foo ko nangam nangam bu dee quatre millions wala cinq millions waxi dàpp tuus sa jumaa daa tëj daara alxuraan yi nga boole ci di jëng sëñ daara yi jàngale bi bi leen tëj ay juróomi at ay ñetti at ay fukki at di leen tere yalwaan te dimbali wala féetewoo leen fenn ak si attewoo ci alxuraan suñu borom nee na kooku ab kàccoor la ab yëfar la am naa fekk la te kat ëllëg suñu borom dana àtte te àtte suñu borom nag moo gën a jub moo gën a maanu ku àtte fii ak ndëng àtte fii ak ay caaxaan na nga xam ne suñu borom dana la àtte ëllëg te boobaa da nga am gàcce da nga am kersa da nga rus. réew mi ñu ngi jafanteeg ay ñu ngi ñu ngi jànkuwanteeg ay coono te kenn tegu leen ko dul njiitu réew mi fi nekk ba muy bëgg réew mi day dawul jóg Tuuba dafa daa rap rap toog ci suuf di si jot सकोगे बताइए इसको sawul bu ko ñor kon njiit li mel noonu ku am yàlla napp na la waaye nag yàlla tëj bunt tëj fenêtre wàcc bureau leer na seet comme yi ndax ñoo yor lépp bëggoon a toroxal Sonko nopp na ci toroxal la ndax tuuma ji ñu teg Sonko di dara te lépp leer na bëgg ko gaañoo tam moo tax pexe yi doon tey jii yëpp ñu def ko waaye yàlla leer na lépp ku am sañ-sañ doole yaay buur لا كري قلبة الذرة قلبة الذرة comme réew mi nag dañ cee nekk di ay jullit di ay sénégalais kon luy defar luñ ci xam war nañ ko wax luy yàq luñ ci xam war nañ ko wax ndax noo ko waxoon ci xuddaamal xadim nii danaa wax ashadu an la ilaha illa allah yi defoon ci Guinée war nañ ko wax waaye luñ ci xam lu ko yàq war nañ ko def wax aslamtu nafsi itam doon ay taalibe kon do yoon wi lu ci yàq bu nga xamee war nañ ko wax lu ñu defar suñ ko xamee war nañ ko wax dëkk ci réew mi nag am dante Sénégal ci citoyen kon nag réew mi lu ci wax lu ci defar lu ko xamee war nañ ko waaye lu ci yàq lu ko xamee war nañ ko wax loo tax na yëkkat suñu kàddu ci suñu turu bopp dina xam ne xew tey ko ñaa di ñaawlu di ko métti di ko ànd nag ñi ñu pas-pas yëpp ñi ñu bokkal bëgg réew mi ñi ñu dëkk ci réew mi di yàlla gàcce gu réer ci noonu gu réer gàcce gu réer ci réew mi tam gàcce gu réer ci jullit yi ndax jullit du fay bokkam boo gisee ñu yëkk suñu kàpp nag li ñu wax rek moo tax Sonko nag sunu dëkkandoo la moo bokk dëkk si kër góor gi ba noppi ñu xam ko ci ak ak gëm dara di jullit gëm di ko pratiquer bu wér kom wér comme ñoo bokk nag ñoom jàngale ñu jàngale ay tubaab nangu kilifteef nangu ndigal loolu toj bi waaye yow bis bañ la falee te dee bëggoo pare nga waxoon ne seen nga ne nga waxoon ne seen kilifa yi dee seen ay citoyen seen pale ordinaire lañ loolu nag moo nekk sa xol ba tey jii yaa ngi leen di jéem a gàccal yaa ngi leen di jéem a toroxal waaye ak ay jafe